ngeen dem ñoom ñu lakkaleen ñu lakkaleen ñu booy comme doomu taal gii dama leen di bu leen tëddee ci guddi ñu fay information yi parce que am na ñoo xam ne nekk ci koy wër ñoo xam ne c'est des fainéants ñoo xam ne ñu ngi ci ñu ngi ci parrain yi ay c'est des nag c'est des nga xamante c'est des a génne population ci des de personnes si daanaka investigation démb jaajëf jaajëf dégg ñu ko bu baax mbokk moomu dégg ñu ko salaamaaleykum salaamaaleykum. waaleykum salaam. DJ. ñu ngi lay ziar. yàlla yàlla doolu ziar naa def DJ. ñu ngi sant yàlla. man DJ man dama laa yërëm. ndax bi nga dalee wax ba tey sénégalais kenn déggul li ngay wax lan la. fi mu nekk nii combat bi ñun ñu nekk ci Europe bii fi mu nekk ni ñun ci boppam ñoo amatul lu ñu war a wax sénégalais yi ñoo war a taw takku taxaw jàkkaarloog Macky Sall parce que lii yëpp Ousmane Sonko waxoon na ko ba pare. gis nga gis nga euh, sénégalais tant que taxawuñ jàkkaarloog Macky Sall ba Macky Sall mandat bii nga xamante ñu naan deux mois trois mois quatre mois mu bañ koo yeggali. Macky Sall du mës a bi Sénégal may wax sénégalais yi nek Casamance nañ takku parce que Casamance moom rek ño xéxal Ousmane Sonko Casamance rek ño xéxal Ousmane Sonko ma ngi ñaan ci Yalla na population Casamance bi ñëpp jug taxaw eggali combat bi ñu xéx li mu jeex soit ñu jox ko dëgg soit ñu jox bañ ko nañu xeex nañu xeex parce que lii fu ñu jëm ah fi ñu jëm baaxul de te maa ngi ñaan sénégalais yi ñu amaat taxawaay ñu bàyyi yoon bi ñuy jël di génn yoon yëpp Macky Sall ubbi na ko pour xale yi génn ñaata xale ñoo génn ci biir semaine bii ñaata xale ñoo génn ci semaine bii plus de ay personnes yu yu bari bari génn nañ Sénégal ndax lan ndax xam na ne xeex day am xam na ne xeex day am maa ngi ñaan ci yàlla yàlla na yàlla jox dëgg Ousmane Sonko Macky Sall yàlla na ko yàlla àtteeg Ousmane Sonko àtteeg ko population sénégalais bi ñëpp seen xol yi dagg na ñëpp seen xol yi metti na ñëpp ngi souffrir kenn amul jàmm suñu yaay yi feebar nañu suñu rakk yi ku ëmb yaa ngi tiit ku ñu woo ordonnance yaa ngi xoolu dootu xamul sax lan ngay wax wala lan ngay def maa ngi ñaan sénégalais yi jug leen DJ maa ngi lay remercier bu baax su ma lay xool sa live wóor na yàlla dama lay yërëm tellement que parce que damay xam ne wax ne li nga waroon wax lépp Akhenaton maa ngi lay ziare bu baax a baax baax di leen baalu àq. jërëjëf. jërëjëf. jël kii tëj micro bi allo. ngi lay ziar. waaw général Djidji. waaw ñu ngi ziar. jaajëf maa ngi soog dugg sa maa ngi soog a dugg sa live tey. Hmm. bu ma yàgg nag damay respecté ces deux minutes yi xam naa ko mat sax.

élément Macky Sall lay par guddi ñu def descente taal seen kër loolu message bu fort la te buñ ci buñ ci taalee këru kenn ñaar ñett rey si kenn seen njaboot wala ñenn ci seen njaboot léegi coow lu jeex te méthode bii buñ ko utiliser par force dafay réussir jarul ñuy wàcc si mbedd taal kër jarul ñuy yàq dara ñu ñu séqal nañ séq ak ñoom ñu gàtt sa gàtt sa face à face directement bugguma téye ligne bi jërëjëf yi laa amoon ko wax c'est la première fois ma dugg sa sa live man di xalaat ne amul beneen solution bu dul loolu parce que ñun ñooy dee buñ leen rey ñoom tamit léegi coow jeex jërëjëf di ci salaamaaleykum. jaajëf. salaamaaleykum. asalaamaaleykum Djidji maa ngi ziar ñëpp ñu ngi lay ziar. waaw man euh, waa ji li mu wax nii. Uh-huh. waa li mu wax nii ànd naa ci te loolu mooy système bi. beneen système bi illaahi wa rasuuli bu fekke dañuy gën pour di di sànnante xeer ci biir koñ yi jarul dara eh, jar moo gën ñu tok dañu jublu palais police ñi kar leen gendarme ñi kar leen kese loolu la jublu palais ñi bay di xeex ci koñ yi amul benn sens amul benn njëriñ ñu ngi koy def ñaata yoon amuñu benn résultat mais nañu jublu palais ñi xeex ñi reyante ak gendarme ak police yi maa ngi lay gërëm di la merci. jaajëf. imaam ma jël kii rek après bàyyi la nga développé. salaamaaleykum. salaamaaleykum. asalaamaaleykum. ñu ngi lay delloo jaar. waaw li nuyu imaam mais ko maa ngi koy nuyu moom sama waay la xam naa xaw ma ma ne affaire yi affaire yi jarul sax ay négociation suba suba. billahi wallahi bis buy waa ji joxe verdict boo xam ne du du faveur Ousmane Sonko parce que loolu du affaire faveur sax mais Sonko dafa am raison am na dafa am dëgg ñii seen nday moomul réew mi seen bàyyi moomul réew ba fichier électoral bi kenn xamul lu si nekk Macky Sall moo koy jël di ko manipuler di dugal di génnee ku ko neex dugal ku ko neex génnee jël kart xale yi yëpp def ci non votant ah loolu sénégalais yi naka lañ ko bëggee accepter ba pare di bàyyi bis gis nga suba bis bu ñu waa ji joxee verdict boo xam ne contraire la ak li li ñëpp xam ne mooy dëgg bis bu waa ji génnee ci tribunal bi rek ak bakkan rek ma xam ne yàlla xam na ne kon tout est échec loolu loolu moom échec total la moom ak bàyyi Macky Sall muy organiser élection yii di ñëw loolu moom échec mënu koo weesu Macky Sall waru ko fee fekk ay élection waru ko fee fekk ba mu koy organiser parce que ñii Macky Sall jël nit ñi bëgg leen a def ndayam ay jam jël nit ñi bëgg leen jam def ay golo nii yenn jaam yi nangu ko dafa ngay gis ay nit yoo xam dañuy dem ba di ko nangu ah naan waa ji sonko mënatu la bokk affaire la bokk lan lan ko mën a bokk ndayam ci élection yi loolu tax loolu xam nga esclavage mo lay parce que ba def la ca ko yëg dañuy dem ba ba def la ca ko def la jàmmalam moo di la nangu loo xam ne yow sa droit la ñu foqate ko ci yow téye ko nga yow téye nga nga nangu ko booy bañ ba ngay bañ ba ba ngay dugg bàmmeel ba ba ngay sukkuraat sa bañkat ba ba muy sukkuraat day bañ loolu mooy loolu mooy bañkat mais nit ñi des fois da sax comprendre man des fois sama xol bi day jeex ba duma ko sax mun duma mën sax comprendre suba billaahi wallahi tallaahi bu waaj beneen verdict ba pare génn tribunal bi ak bakkan dem ñibbi këram tëdd nelaw lekk ay lekk a reeram aña aña añam ma xam ne Sénégal moom xoolal c'est définitivement foutu parce que pare nañ parce que réew mi risqué wuñu ñi xam ne ñoo ne ci bopp réew mi di nax askan naan ay république ak ay état ñoom dañoo risqué wul dara loolu daam nekk si leen neex est-ce que loolu Macky Sall risqué wul rien du tout moo tax muy def li ñuy def ak ñi ñi àndal dañuy def lu leen neex ëllëg bu leen Amadou Amadou Wuri voleur ba ah sàcc xaram boobu noonu bu ñu fexee ba teg ko fi ñoom bu ëllëgee dañuy dem nekk ci seen gàngu naay daan gundaandaat dara du leen ci fekk parce que risqué wuñu dara kuuri wuñ kuuri wuñ benn risque mais bu leen leeroon ne tey Macky Sall buy dara yëngutoo ci wetu palais bi rek ñaari janax sax bu ñu xeexee mu ne askan waa ngi ñëw kooku lu muy def da koy xoolaat da teg si yoon da koy teg mais instant dañoo changé peur bi instant ni Sénégal yi ñoom ñoo fal seen président ñoom ñooy toog ñoom di tiit quoi di rek di ko ragal di am buñ buñ nee ñaari fan ñu génnee policier gendarmerie policier gendarmerie ci mbedd bu manifestation amee nga ñooñu génnee ci mbedd yàlla xam na ne billahi loolu rek la ñu billaahi wallaahi kenn desul ci ci camp yeeg caserne bi kenn desu fa loolu la ñu am keroog loolu la ñu ko xoolee nit ñi nag sol ñu ko def ñoom ñu éliminer leen définitivement ñu jóge sàcc yi dañuy def leen rek lañ doyee police mbokk lan moo ñu def suñu mbokk kii défendre ab sàcc sàcc bi ñëw sa kër tëb dugg sa kër sàcc sa téléphone rey seen waa kër ñu ne la kooku yow ki koy défendre ñu ne sa mbokk la du sa mbokk bul gendarme yeeg police yi duñu suñu ay mbokk te duñu suñu ay mbokk ëllëg suñuy ennemi dañu war a xeex ak ñoom ba dugg vote vocal loolu mooy dëgg jaajëf jaajëf voilà gars yi dañuy bàyyi imam muy eggali may wax ne cocktail Molotov cocktail Molotov yi Imam Aca Waouh, waouh, waouh, waaw waaw maa ngi nuyuwaat mbokk yëpp di cocktail Molotov effectivement actuellement on est en pleine production Nous ngi produit, produire effectivement nous avons les cotisations. wax il faut ñu jàpp ci kenn ku ci nekk ñu xool ñu koy defee ñu ngi wu wu ci xëy na fii ak ay fan daañu am ay dispositif yu bees yoo xam ne benn laaj lay doon ci ñiy xeex ñëpp ñu boole ko takk pour mën a gérer logistique yu xeex bi ndax dañuy xeex nit ñuy wax yëpp da ngeen di xeex par force ku ma xam-xam na xeex laa ma sa gëm donte am nañu ay argument de droit yu ci nekk mën nañ ci ñun mën nañ ci fii mën a ci fee mën nañu xeex mën nañu wax ci droit waaw léegi nag li ki nekk dañ ko topp ba mu sës mais xeex moom dañu koy def amuñu pexe ndax ku xeexul nekk jaam wala nga nga dem bàmmeel makk da lay rey donc amuñu fexe dañuy xeex par force daañu xeex ndax ñi ngi waxtaan ñi ngi liggéey ci suuf pour taxawal loo xam ne mënaguñ ko yëkkati ci kaw waaye préparé leen yéen ñëpp diaspora bi comme yi nekk bi Sénégal région yëpp daañu xeex ak Macky Sall mu rey ñu wala ñu rey loolu laa yàgg wax dafa leen jëm yàggatul insha allah li xew suba benn parti la rek ci li war a xew am na mbokk mu dugg léegi laaj ne waaw bu ñu amee foofu dëgg wala ñu ñàkk ko mën nañu dem cour suprême effectivement jugement de première instance la tribunal d'instance la

dàq koo xeex ëpp ko fit daañu reyanteeg moom rey ñu wala ñu rey duñu tàyyi duñu bàyyi duñu dellu ginnaaw préparé wu leen yéen ñëpp suba une grande mobilisation tous les trois départements de Ziguinchor Bignona Oussouye à Ziguinchor les quartiers de Ziguinchor yéen ñëpp à au tribunal suba dans un premier temps ñu déglu juge ba xam lan lay wax en fonction de li muy wax ñu xam ni ñu déterminé on a on est en train de produire suffisamment de cocktail Molotov ak yeneen outils de combat yoo xam ne ñu ngi koy préparé ci suuf lépp mënuñu ko wax mais dañuy xeex loolu moom ne vous en faites pas ñi nga xam ne nag ñoo jël gaal bi di génn réew mi dem nga xam ne Macky sàll moo ko organisé ak doomam jël ay millions defar ay gaal jox ko ay nit ñuy seppi ndaw ñi di leen yóbbu españ piège la leen Macky Sall tegal ñu ci bari bu ñu demee Espagne dañuy dellu gouvernement espagnol bi jël na décision ci semaine bii fii ak semaine prochaine képp ku jëloon gaal bi dugg Espagne da nga dellu Sénégal dañ lay rapatrier par force ñi nga xam ne jot nañ leen rapatrier actuellement ñi ngi ci prison yi. prison yaa ngi fees dell dell dell dell gannaaw patriote yi ñu fa tëj ñu ëpp ci kaso yi mooy ñu jëloon gaal gi dem ñu indiwaat leen Sénégal ñu bari ñu ngi leen rapatrié ñu ngi ci biir prison yi léegi fees gi prison yi fees dafa am lu mu jur ci biir prison yi mooy dañ cee dolli ñu demoon ci gaal gi ñu indiwaat leen Macky dugal leen ci kaso yi parce que Macky Sall dafa liggéey ak espagnol ci wàllu woowu naa leen yóbbu génne leen réew mi ngeen jàpp leen joxaat leen ma leen ma dugal leen ci kaso yi kenn du yëngu kenn du xeex waaye sax du ñu voté du voté patriote yi moo tax génn réew mi mook dugg kaso ñoo yem ndax boo demee dañ lay delloo si Sénégal te boo ñëwee Macky da ci sukkandiku tëj la ci kaso bi demoo Espagne mënoo voté nga nekk ci kaso bi toog leen ci réew mi ngeen xeex lii ma leen di wax ni information bu officiel la bu jógee ci ministère de la justice et ministère de l'intérieur bu Espagne képp ku dugg Espagne te foo mënti nekk daañu loxoti Italie boo demee Italie boo demee France foo manti nekk dañ lay topp daañu la jàpp dugalaat la ci avion delloo la Sénégal Macky sàll tëj la ci kaso bi ñi jot a dem ñi ci ëpp ñu ci kaso bi ba kaso baa ngi fees dell ba am fu ñu tëdd léegi na comme kaso yi dañoo fees ñi ci bari ci gaal gi la ñu ñu indiwaat leen fees gi ñu fees tax na nit ñu amatuñu fu ñu tëdd amatuñu fu ñu teg seen ndong danka bi àgg na foo xam ne danga ci gis ñu bari ñoo xam ne dañuy saf saw bëgg a jóg dem saw yi ñëwaat waaye bu ñu demee saw yi ñëwaat bu ñëwee du ñu am fu ñu taxaw waxuma la toog daal tëdd waaye taxaw sax doo am foo ko def ndax kaso yu fees li xew ci kaso Sénégal bi c'est scandale loolu kenn mës koo gis nanguwuñu kenn ku fa dugg ndax nit ñi dañuy taxaw da ngay gis ko saf saw war saw jóg dem saw yi du ko def ndax bu jógee dem saw yi bu ñëwee du am fu mu taxaw da koy téye di ko téye di ko téye loolee dafa commencé jur ay feebar ci ñoom insuffisance rénale dafa commencé bari crise yi dañu commencé am ay problème prostate am ay problème rein ndax lan saf saw boo xam ne boo jógee dem saw yi boo ñëwee doo am foo taxaw ndax ñàkk place ci yi c'est un crime contre l'humanité ce que Macky Sall est en train de faire dans les prisons de Dakar et du Sénégal c'est un crime contre l'humanité c'est une torture Macky Sall est en train de remplir les prisons sénégalaises d'une manière telle que les prisonniers ne peuvent plus aller faire pipi encore moins faire leurs besoins, par peur de perdre leur place de positionnement dans les chambres de prison. Ils sont tellement en surnombre qu'ils sont dans une position donc de sardines, les uns sur les autres. Personne ne peut aller faire des problèmes de vie. Et ça, je le dis à l'endroit de la communauté internationale et des organismes qui s'occupent des prisonniers, notamment les prisonniers politiques. Macky Sall est en train de commettre un crime contre l'humanité dans les sénégalais, dans les prisons sénégalaises. Ceux qui voulaient aller à l'immigration clandestine sont rapatriés et emprisonnés. Les prisonniers politiques qui ont été poursuivis pour des délits d'opinion et donc des délits euh, politiques, aujourd'hui remplissent pleinement les prisons. Aujourd'hui, dans une chambre de prison censée euh, recevoir 10-15 personnes, on y met 200 personnes. 200 personnes, je le dis en français pour que le monde entier sache la torture, le crime contre l'humanité que Maxal est en train de perpétrer dans les prisons sénégalais. C'est un crime contre l'humanité. Maxal doit être poursuivi. Il faut que tous les Sénégalais s'élèvent, que la communauté internationale, que les organismes et les organisations qui s'occupent des droits humains, le comité des droits de l'homme des Nations Unies, Human Rights Watch, Amnesty International et l'organisme qui s'occupe des conditions de détention des prisonniers au Sénégal sont tous interpellés pour aller visiter ce qui se passe dans les jungles sénégalais. Ce qui s'y passe est scandaleux. On n'a pas envoyé des gens en prison par simple délit d'opinion ou politique pour après créer des maladies incurables, des insuffisances rénales, des problèmes d'hypertension, des problèmes de vessie, des maladies, des handicaps et tout ça qui sont liés au fait que les prisons sont pleines à craquer, au point que personne n'ose se lever pour aller faire pipi par peur de perdre sa place, parce que dès que vous quittez, vous êtes obligé de vous mettre debout pendant des jours, vous ne pouvez pas dormir. C'est une torture. C'est scandaleux. Ce qui se passe au Sénégal est pire que ce qui s'est passé à Auschwitz. Ce que Macky est en train de faire au peuple sénégalais, c'est pire que ce que Hitler a fait aux Juifs. C'est scandaleux, c'est dangereux et que tout le monde doit laaj boobu nga xam ne mbokk mi laaj na ko fii effectivement que bu ñu en première instance en tribunal d'instance ku ne mën na def appel ñaari parti ça c'est vrai c'est la procédure c'est comme ça mais dans tous les cas ñun loolu waxuñu ko li xew suba ci loolu la ñuy taxaw bu weesoo ñu taxaw ci leneen na ngeen préparé wu boobu ba léegi xeex amul mais ñi ngi préparé wu on fait le stock on a des équipes qui travaillent constamment H24 pour produire les stocks de guerre nous sommes en guerre contre Macky Sall parce que Macky Sall est un faillu Maxal est un, il est indigne de diriger ce pays. Maxal est indigne de diriger ce Sénégal. Il faut lui faire la guerre parce qu'autrement, il ne quittera pas ce pays. Quand nous ne ne pas pas nous il n'y a pas de solution, il n'y a pas de condition, il n'y a pas de ça, ça, ça. Ben, xeex moo fi am mooy jàmmaarloo ak Macky Sall kantaan nag ñi ngeen fi tudd ay tour xaw ma kan kuy wax ay jiji ay akaton ñooñu jiji mas nga wax ay waxam waa ji ñu fi tudd Sall mm-hmm. borom salon de saalu sport boobu ba nga ma Pastef ñoo xam ne ay infiltré lañ Macky Sall la liggéey ak gars yi nekk ci régime bi ñu jox leen xaalis ñu ubbi seen ay salle de sport toog di wax di fen infiltré patriote lu xam jox ko renseignement taxaw tey di ñu ñoom ñoo dugal Ousmane Sonko ci guute gi leen bëgg a nelawal pour ngeen nelaw pour ngeen bañ a xeex ñoom ñooy noonu Ousmane Sonko yi moo tax doo ngi dégg kenn ku wax ñu ngi tudd ñëpp biir Pastef ak ñoom ñu taxaw di laaj naan bu leen déglu bu leen déglu déglu yow koy waxal rek ñi kenn moomu leen ku leen neex la ñu déglu ñooñu nag ngay wax ñooñu duñ nit dara man naw la ma leen bay tudd seen tur sax fii xaw ku fi dugg sàng tudd ko mais ñooñu duñu samay nawle jii ji mas nga wax xam ne ma dimbali nag woo na la bëgg xaalis nga jox xaalis ma ne la waroo ko woon jox jox suñu biir di liggéey ak Antoine Diome saalu musculation boobu c'est pour infiltrer les patriotes gëmul xeex bi àndul xeex bi mus mu ko wóolu samay wax jalu muus na la ma waxoon tey ñëwoon ñoom ñëpp ana ñu ñu fi taxawoon ku nekk taxaw di wax ana kuy xeexal Ousmane Sonko kan dégg si ñoom ñu taxawoon dañoo ay poste maire yëpp ñu xëccoo ko ñoom ana ñu ana ñi ngeen fal kenn nekku fi ñu ñoo fi nekk di xeex ku neex nga wax daa ñu xeex ba génne Ousmane Sonko te Ousmane Sonko bii ñuy xeexal bu génnee bu génnee beneen Ousmane Sonko lay nekk incha allah par force kon maa ngi delloo kàddu yi nga joxe waat yi ñu wax. jaajëf jaajëf. man ñaar yi bala may bàyyi bala may ubbiwaat ligne bi dinaa ko wax jamono yi ñu toll jamono yi ñu toll ni tembe su ma déggee ab taalibe bu taxaw pour défendre sëriñam di wax waxu jiji wala ñiy saaga sëriñ te nga ne patriote nga teg si ku ñàkk jom nga parce que li nga war a wax actuellement ni mooy ki nga wax ne moom nga gëm moom ngay jàppale en tant que patriote mi ngi ci kasso bi serigne bi ngay défendre lu mu ci def loolu moy sa problème loolu nga wara régler mu lèr suma déggé ap patriote ko ci melni Jim Ndiaye damay tuddu turam bu ñu nee moom moo taxaw di tuddu jiji japp leen né jam dëgg dëgg dëgg moy Jim Ndiaye booy wër jam dëgg moo yor jikkoy sénégalais Jim Ndiaye moy sénégalais jar gogo parce que yeen actuellement yeen nek ci Ousmane Sonko yow ya fi doon jënd xar di titeru waxu barko ousmane sonko di fi tiitaru ainsi de suite yeen ñooñu ibrahima gay nay leer daf leen gëna goré ta te yor avenir bi yeen ñooñu booy tëdd ci kasso bi yow jim njaay ni nga fe mu genn ñoro la nga tok naan bu leen deglu jiji bu leen déglu akenaton deglu won nga jiji ba wër numéro xam ko ba wax ak mom ma yëkëti li fi ne jox la defal ko say morom man awma intérêt Sénégal ben intérêt dong la fa am ben intérêt dong bu Ousmane jëloon réew mi tay wala suba aduna du yag ba ngeen ñew seen ma bir Sénégal may tungi tungi ak yeen di njëkkante place yi déedéet xam nga luma ci soxla vacances jot ma jël sama avion wala ma dawal sama auto jaar fu daan jaar dugg ma gën ci ndawle waye na am sama roq su ndaw su ma sama yah yu ndaw yi dund dund gu rafet kuma ma romb bañ ko yeurum hôpital bo dem mu bax su ma feebaree mu leer mu mën naa faju ci réew mi du ma delluwaat lii dong mu andi parce que ay moromam ba fi nek ah, taxaw di laaj ken doy ma doy ma ma taxaw ci lu fi am siisante ta amagul leen dara yéen jógleen ci taxaw am xadaru taxaw fexe ba mu bokk ci élection yi am xadaru taxaw ba fexe ba doon ay sénégalais am sàmba ak topp ma demb du seen priorité